dugg leen ci page YouTube bi daanaka question yi may am ak quatre-vingt-quinze pour cent mooy yi nga xam ne def naa ci vidéo mun ngeen dugg ci page bi ngeen tàppee ko bu fekkee nag koo xam ne da nga bëgg a film mën na nekk mais bu dee téléphone bi comme li may wax toujours c'est payant nekkul loo xam dañ ko def gratuitement ñi envoyé cinq cent yi nañ ko arrêté parce que wax naan système boobu marché tul benn système bu ñu nekkee ban doxatul da ngay xam ne man maa ne arrêté nañ ko ñu ànd marché ci dara nag lu liggéey dafay am tegu ci yoon te itam dafay am amélioration Euh, ku bëgg firnde 2000 francs la par téléphone su dee loolu nga bëgg waaye mën na ñàkk yaakaar naa ne soo duggee ci page bi daanaka li ñu ëpp ni damay fay 2000 ba pare li ma laaj defal naa ko ci vidéo xaw ma nag euh, voilà hmm. bu kenn envoyé dama ne seetal ba noppi boo gisul nga doog a def man moo gën a économiser ci yow te moo gën a sakkan euh, tey ñëw ci gént yi nga xam ne dafay firi tukki ci aji gént dafa am ci gént yoo xam ne foo ko yitteentee dafay firi ñaar ya yoon tukki ci moom rawatina ko xam dafa fekk tukki nekkoon sa yitte yan ak yan la bu njëkk bi mooy lépp loo xam ne dafa ay ci graisse graisse gii nga miin walla beurre graisse moo xam bu ñu defar la moo xam graisse bu ñu defarul lu mu ci mën a doon jàppal ne dafay firi tukki ci gént ak ku mën a doon ñaar bi nga gént di lem sa yére walla di paase sa yére dafa bokk ci gént yi nga xam ne dafay firi tukki ci aji gént ji da nga gént di dégg giléem guy jooy jooyu giléem nga dégg bokk na ci màndarga yi nga xam ne dafay tukki ci ki nga xam ne moo ko gént da gént di di ràbb wala ngay raw buum buum yi nga gis nga xam da nga koy raw wala di ràbb ci buum bi wala mën a doon bokk na ci màndarga yi nga xam ne dafay firi tukki ci ki nga xam ne moo ko gént danga gént di yéeg ascenseur la walla escalier la waaye fi nga nekk euh, euh, comment dirais hôtel la yaa ngi ci hôtel bi jël ascenseur bi di yéeg walla ci escalier yi nga jaar euh, dafa bokk ci màndarga yi nga xam ne dafay firi tukki ci ki nga xam ne moo ko gént gént nekk ci hôtel boo xamul xam nga ne maa ngi ci hôtel waaye hôtel bi xaw ma fan la xam ma ban hôtel la ci biir gént gi bokk na ci màndarga yi nga xam ne dafay firi tukki Mhm. da nga gént say tànk gën a gudd ni ni nga ko xamee tànk yi gudd na ba jéggi dayo ci gént nekk ala rëy laat yi dafa bokk ci màndarga yi nga xam ne dafay firi tukki maanaam mu nekk lu naturel bokk na ci màndarga yi nga xam ne dafay firi tukki moo di danga nga gént di def tour du monde wala ngay voyager di visiter ay dëkk yu bokkul bokk na ci màndarga yi nga xam ne dafay firi tukki euh, bokk na ci table bu ñu dressé ak ñam table à manger gis nga dressé nañ ko defar ci ay ñam comme ba mu rafet euh, càlleen yeeg kaneen yeeg ndaw ndaay dina leen neex waaye loolu jàppal ne dafay bokk ci mandarga yi firi tukki rawatina ko xam ne tukki dafa nekk sa yitte voilà da nga gént jënd pantalon pantalon bi jiin la kaki la xeetu pantalon bu mu mën a doon wala nga am koo ci gént bokk na ci mandarga yi nga xam ne dafay firi tukki ci aji gént bi mhm. da gént gis benn espace vert bu rafet jardin ay garab la lu mën a doon bokk na ci mandarga yi nga xam dafay firi tukki léeg-léeg poussière nga gis sa yére poussière ba voilà wala say dàll poussière wala nga sentir sa xar kanam gi wala sa kawar sa yaram poussière nekk walla sax nga gis poussière généralement bokk na ci mandarga yi nga xam dafay firi tukki da gént ci biir gént nga jógee ci voyage yëngu nga ne tukki nga ba yaa ngi ñëw kàddu say valise bokk na ci màndarga yi nga xam ne dafay firi tukki euh, bokk na ci màndarga yi firi tukki mooy danga nga nekk ci diggante asamaan ak suuf di naaw yaa ngi naaw ci diggante bi euh, defal naa leen vidéo bu spécial bu yaatu ci naaw waaye dangay xam ni ki nga xam daf laa fekk ci yitteewu tukki bokk na ci màndarga yi firi tukki buy sotti ba yomb yàlla defal la ci tawféex ci charte nga gën bañ a daanu ci gént gi wala nga bañ réer ci gént gi ñaar yooyu fu mu amee ci naaw rek baaxul ci gént euh, bokk na ci màndarga yi nga xam ne dafa firi dafay firi tukki rawatina ci jigéen boo xam ne dafa nekk ci néegu sëy da nga gént sa boroom kër jigéen boo xam ne yaa ngi nekk ci néegu sëy nga gént sa borom kër jox la parfum wala mu may la ay dàll ñaare bokk na ci màndarga yi nga xam ne dafay firi tukki ci aji gént gi euh, même aji ëmb ji bokk na ci màndarga yi firi tukki léeg-léeg voilà euh, bi ci topp mooy da nga di dawal yor vélo boo xam ne maanaam courant par exemple comme moto yu mag yi euh, ñi miin ci Sénégal moto ci def naa ci vidéo bu yaatu bokk na ci màndarga yi firi tukki léeg-léeg jigéen bu mu mën a doon jigéen bu am jëkkër la amoo jëkkër bépp jigéen bu ma da danga gën di lelli say weewu tànk maanaam dagg sa tànk sa sa weewu tànk ci jigéen bu mën a doon bokk na ci màndarga yi nga xam ne dafay firi tukki ci jigéen euh, da danga gën di gis sungufu or wala sungufu xaalis ci góor bu mën a doon dafa bokk ci màndarga yi nga xam ne dafay firi tukki gént salaire da nga dem ñu fay la sa salaire wala nga dem si banque ba retiré ñu fay la moo xam sa carte gam nga dugg retiré loo xam ne ci biir gént gi salaire la bokk na ci mandarga yi firi ab tukki ci aji gént gi yeneen détails yi nag naam dama gént ñu jox ma sama salaire ma ci nàngam loolu ngay jàpp ne détails yooyu amul solo li ma wax mooy da nga gént euh, salaire balaa ñu ciy continuer ñu leen di présenté waat càngat yi xam ne moom lañ leen di faral di woon toujours muy càngat yi képp koo xam ne mën nga góorgóorlu ba am ko dafa nekk càngat yu am solo lool ci wàllu kaaraange ci wàllu ubbeeku ci wërsëg surtout ki nag beneen kàngat la boo xam ne ñu ngi leen koy wal yi bokk na ci kàngat yu yéen yi nga xam ne ñu gerte bi yëpp di nag kàngatu gone waaw kàngatu mag la bu am solo lool koo xam ne ñu leen am ko fii di dara gën ko ci wàllu ubbeeku ci wàllu bàyyi ci wàllu wërsëg surtout surtout ci wàllu kaaraange ku yitteel foo mën nekk rek jot ñu même bu tey bu ñu déggantee mën la xool yan possibilité la ma def nga jot gént bokk di nekk di lekk ak ku faatu jiw faatu na xam nga ko ngeen gént nga gént di lekkandoo ak moom sauf que sa waajur bu génn na bu góor nga gént muy lekk ak famille bi kooku def naa ci vidéo bu yaatu mën ngeen dem xool ko mais gént di lekk ak ku génn àdduna sa xarit la ku mën a doon bokk na ci màndarga yi nga xam ne dafay firi tukki hmm. euh, bokk na ci màndarga yi firi tukki mooy di góor xam naa euh, jigéen da nga gént sa borom kër li mooy la jigéen nga yaa ngi ci néegu sëy nga gént si sa borom kër di séq ak beneen jigéen boo xamul wala mu trahir la ñaar ya ñu bari dañ koy gént delloo ko ci biir sëy bu nekkul xadis nafs ñaar tukki ci yow wala sa borom kër amul benn rapport ak mbir mu mel peinture mën a doon couleur bu doon ci gént ñaari lay gën tukki waaye ci xale bu góor bu amagul soxna da gént di dox yaa ngi ànd ak ku faatu diw faatu na ku mën a doon nga gént ànd ak moom moo xam ne ngeen jàppante loxo wala ngeen di doxantu yu mel noonu bokk na ci mandarga yi firi tukki jarul nekk fi na naan ma hi man kay démb si guddi diw laa gént gis ko ma ànd ak moom di dox nàngam loolu yeneen détail la amatul benn solo ak moom li am solo mooy jàpp ne gént nga ànd ak ku faatu ngeen di dox ci charte yéreem ba bañ a tilim bañ a xiif bañ a ràgg bañ a log yu mel noonu bu amee Euh, bokk na ci màndarga yi nga xam ne dafay firi tukki mooy gént di lekk lem waaw bokk na ci màndarga yi firi tukki giléem ci gént am nay détail waaye jàpp ne bokk na ci màndarga yi gént yi nga xam danay firi tukki euh, da gént jumtukaay yi nga xam ne moom la euh, adawaatu nawaaf mooy ñu nettoyé kër moo xam dañ ci bale moo xam dañ ci raxas moo xam bu mu ci mën a doon jumtukaay yi ñuy raxasee kër yépp rek ngay jàpp bale peel bale gi tout bokk na ci màndarga yi firi tëj voilà pharmacie ci gént ci góor bokk na ci yi nga xam dafay firi tukki léegi def naa vidéo bu yaatu ci pharma ci pharmacie góor gént gis jigéen bu rafet ci góor jigéen bu rafet lool bokk na ci màndarga yi nga xam ne dafay firi tukki léegi dana firi xéewal ak wërsëg yeneen te am na ci alaakulli am ñu ngi leen di ñaan ngeen abonné te partagé wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa